kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko nga xam ne mun Sénégal mooy leader bi nga xam ne mooy jiite opposition yi mooy tet ku ko nangu moo am ku ko bañ moo am wallahi ay mbiram la ma ci waxoon rek kenn mënu ci dara képp ku ko bëgg faagaagal yow yaay faagal waaye suñ boroom not noppi na ci moom asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu nga am mbégte dalal suñu plateau kii di Serigne Fallou Diop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 déplacement bi ngeen def seet suñu nga xam ne lépp luñ ci waxtaanee rek njariñ lay doon ci kàttanug yàlla. ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu képp kuy seetaan site bi rek ñu ngi lay nuyu. bisimilah. alors euh, Sëñ Fallou ñu laaj la d' abord si suñu am ginnaaw bu ñu amee mbégte dalal la si euh, suñu plateau lan mooy seet ak ban jeexital la mën a am si dundin doomu aadama. waaw seet dafa nekk loo xam ne dafa mënul ñàkk ci dundug doomu aadama ndax Alxuraan dafa ne wa alaamaatin wa bin najmi hum yahtadun alaamaat nag ay tegtal la yoo xam ne ci biddiw lañ koy defee ndax doomu aadama yi suñ borom di leen bindalee ci tabixa yi ñu bokkul am na ñoo xam ne hawaa yu lañ am na ñoo xam ne maa yu lañ am na ñoo xam ne turaabi yu lañ am na ñoo xam ne naar yu lañ nit ki nag lépp lu muy dugg ci kaw suuf da ko war a seetlu moo xam sëy la moo xam muy ubbi place moo xam muy tukki ba ci yoon yu gàtt yi sax seetlu ko ndax bis yi dafa am bis yu rafet am bis yu lënd am am bis yu lëndëm am leer erreur la ci nit muy dugg ci lu mu mën di doon te seetu ko moo xam sëy la moo xam place la moo xam lu mën di doon seet daal jàppal ni lu mënul ñàkk la ci dundu doomu aadama ndax moo lay wan fa yoon wa ngay jaar pour li ngay dugg nga bañ ci am benn jafe-jafe. Mm-hmm. alors ginnaaw loolu lan mooy xam-xam as asraar. ilmul asraar xam-xam la boo xam ne xam bu yaatu la yàgg naa ko wax nit mënul xam lépp nit danga koy xam as keneen xam ci as day mel ni géej rek mënoo sangoo tefes yépp déedéet noo ci soobee rek noonu nga cay tooyee. lenn li dañ koy jàng lenn li dañ koy gëstu lenn li nag suñ borom mën na koo xamal nit ndax alxuraan dane wattaqullaha wa yuallimukumullaahu da ngay ragal yàlla ba àgg ca lool suñ borom xamal la xam-xam asaar dafa bokk nekk na xam-xam boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñu ko tasaare ci la bokk ndax yonent bi am na ci xam-xam yoo xam ne yàlla da koo jox ngir mu xamal ko ñëpp muy alxuraan ak xadis waaye bu dee xam-xam asaar nag mooy xool ku ko neex mu xamal ko ko xam-xam asraar nag bëri na ay yonent yoo xam ne daan nañ ko jëfandikoo Suleymaan nguur gi ko yàlla joxoon lu ci bëri ci xam-xamu asraar la ko daan jëfandikoo daan liggéeyloo ñëpp xam-xam asraar daal xam-xam la boo xam ne bu yaatu la nit mën na cee defaru defar ci àddinaam defar ci àllaaxiraam mhm. d'accord euh, ginnaaw loolu tamit gis nañ jamono ji impuissance sexuelle la bëri na trop si dëkk bi ban solution nga ci mën a indil askan wi waaw impuissance sexuelle moom euh, dafa nekk loo xam ne ñu koy dund bëri na lool fi ne nii may waxee nii yow sax ci gone yi la gën a ëpp lu muy dal daanaka léegi ndax li koy waral ci nit dafa bëri euh, nit ki mën naa am àndandoo boo xam ne mën naa téye awraam ba na mu waroon a guddee du ko guddee ndax awray góor dëgg day dëgër dijj yaatu noonu la awray góor di ma dëgg dëgg day dëgër dijj yaatu mm-hmm. léegi nag nit ki nag ki nga xam ne impuissance sexuelle da koo dal maanaam ñëw doole kàttanug sëy da koo dal bu ñëwee dañ koy xool seet ko xam lu ko waral ndax li koy waral ci nit bëri na ndoxum siti dana ko waral émorite mën na koo waral stress bu bëri sax mën na ko waral waaye lu ci mën di xew rek dañ koy seet ndax man du ma jëflanteeg nit mukk te seetuma ko te lépp luñ ciy liggéey nag arxu an lay doon arxu an lay doon te liñ la ci buñ ko liggéey ba noppi liñ lay jox nekkul loo xam ne bu ñu la ko joxee danga koy jëfandikoo rek mu tenir la léegi moment bi nga koy soxla rek mu après bu ëllëgee da nga koy soxlawaat déedéet hmm. dañ koy faj ci yow ba mu set wicc ba nga xam ne di nga mën a sëy ñeenti jigéen ci génn guddi te du la wàññi dara hmm. su ma ne ñeenti yor ñeenti soxna waaye ki ki yor benn soxna mën naa sëy soxnaam ñeenti yoon ci génn guddi te su hmm. boobaa du ko wàññi dara ci kàttanug yàlla daal képp koo xam ne suñu borom indil na fi muy wàllu ngóor a tële moom ci kàttanug yàlla suñu borom mi maye danañ la faj ba ngay wér kéng te lépp nag du weesu arxu aan ndax man duma liggéey lenn luddul alquran waaw d'accord ginaaw loolu tamit gis na ni ñu bëri dañoo am problème kayit si si dëkk bi maanaam muy si Dakar wala feneen ak feneen ban solution nga mën a indil ngir génne ñooñu si ay jafe-jafe yooyu la waaw wàllu kayit moom problème kayit moom li ma ci yàgg wax bëri na li ma ci am ci ay résultat kenn xamul lu mu toll bitim réew Sénégal ak fu mu mën di yam fu mu mën di nekk mhm. euh, ci kàttanu yàlla màggal Touba gii di ñu jëm am na ñoo xam ne danañ màggal si teg ba man ak ñoom du boobu nekkul woon daanaka ci koor gi. Mm-hmm. te suñu borom dogal na ni am nañ ay këyit ba war a ñëw màggal si. Mm-hmm. loolu nag ndamawuñ ko waaye dañ koy sant yàlla ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis. Mm-hmm. xéewal gi dañ koy sant yàlla lii mu ñu may dañ koy santee waaye wax ji dañ koy sante waaye nekkul ne lu ñuy lu ñuy puukaréewu ndax suñu borom mooy maye bu ko neexoo ñu ñaan ko mu bañ ñoo may. waaye nag li mu ci mën na wax lépp nag day doon alxuraan rek. ndax Ibnul wax ne man istafa bi xayril quraani képp koo xam ne yaa ngi fajoo ci lu dul arxaan wala yaa ngi ñaan ci lu dul arxaan la nga ñaan mën naa nangu de waaye nag jàppal ni fajuwul ndax bu baa suñu borom day dalay jey ndax sa nastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun loolu arxaan wax nga jëfandikoo leneen lu yàlla araamal ci wàllu ñaan lu dul borom lay jey ndax suñu borom moom képp ku mu jey nga jeyaxu ndax dalay kàttanal ba nga yaakaar ne yow dootoo daanu boo weddee laajal firawna nga xam ne ci kàttanu yàlla wàllu këyit moom mën nañ cee ñaanal nit ci lu gaaw résultat bu gaaw suñu borom jàppandil ko moo xam problème papier la yu nekk tribunal moo xam wàllu kër la moo xam nga tukki bëgg am ay kayit ñibbisiwaat sa réew suñ ci defee liñ ci war a def jaar ko bañ ko fañ ko jaar ci kàttanu yàlla suñu borom dina la ko may am na ñoo xamante ni dañoo am jafe-jafe maanaam si seen wàllu euh, société bi maanaam ñu liggéey leen loo leen mën a jàppale ba liggéey bi deñ ensuite ñu am bu euh, ñu am ubbeeku bu baax a baax mm-hmm. ok wax nga question bu am solo ndax gis nga nit dana wut dara mu jafe ci moom lool leen dong moo ko waral muy liggéey yu ñu def ci moom ay def-def ba tax na yaram yaramam tëju. Mm-hmm. ki nga xam ne suñu borom dogal na dañ dafa dafa yëg ne ci boppam moom mii nitu wërsëg la waaye lan moo ko tee avancé ngir mu am li mu bëgg bu ñëwee dañ koy xool ba noppi. Mm-hmm. ndax ndab kenn mënu caa def lekk tarxasoo ko ba noppi. Mm-hmm. buñ ko xoolee xool yaramam xam ne kii. li nekk ci yaramam mën nañ koo dindi danañ ko dindi moo xam dañuy toj liggéey yëpp liggéey nag toj bi dafa am ñaari façon yu bokkul ki nga xam ne mënoo koo gis mënoo koo jox mu lekk fi ngay jaaranteeg moom ñu mënoo koo jox mënoo koo jox mu sangu mënoo koo jox mu takk fi ngay jaaranteeg moom mooy liggéey ci course te xam na ne course moom dara gënu ko gaaw ci toj liggéey ak wér ndax ñun tur yàlla wi ñu yor suñu borom euh, dimbali nañu liggéey nañ ko ba am rawxaan bi am xuddaam bi ba luñ ci ñaan suñ borom ci kàttanu yàlla dana ko def ci kàttanam gi ki nga xam ne tamit liggéey nañ ko moom faaw bu ñëwee dañ toj liggéey ba pare doo koo defal ubbeeku ubbeeku nag moom yàgg naa ko wax ba ma dalee dox ba léegi gisuma fi sëriñ bu ñu sëriñ bu ma ci sut hmm. wallahi bari na fi sëriñ yu ñuy ran fii seen i kër ñuy joxe ay ubbee ko wallahi la ñuy joxe ci man lañ koy jëlee hmm. waaw loolu nag moom nimbaluk suñ borom la goo xam ne suñu borom may na ma ko maa ngi hmm. koy santé bu baax a baax a baax nag waaye du weesu ji lépp lu may defal ci laa koy def ubbeeku dama ko ciy liggéey ba ci liggéey wàllu sunguf gis nga sunguf sunguf si may joxe lu jëm ci nga xam ne moo sunguf ci yàlla moom tamit ci ubbeeku dan lu bari dana jëm ci ubbeeku lépp dañ koy mooñaale nga xam ne képp koo xam ne suñu borom dogal na ne yow nga am jafe-jafe boobu boo ñëwee danañ la teg ci yoon incha allahu rabbi. ndax euh, Sëriñ Fallu dina liggéey si wàllu xam-xam bu ñuul. waaw xam bu ñuul dama ci indi ak leeral gu ndaw nit ñi foog nañ ni xam bu ñuul mooy ay béjjën ay tur dareet déedéet xam-xam ñuul mag ñi bu ko daan wax mooy sunguf ak reen. sunguf ak reer ndax arxuaan mooy lu leer nañ sunguf ak nag lu ñuul la waaye lu ñuul loolu mën nañ koo booleeg arxuaan ndax man sunguf si nga xam ne dinaa ko jëfandikoo di ko jox nit lu jëm ci wàllu ubbeeku loolu arxuraan lay àndal kon xam-xam bu ñuul dinaa ko jëfandikoo ndax am na ñoo xam ne sunguf daa gën a gaaw lool ci seen mbir am ñoo xam ne arxuraan daa gën gaaw lool seen mbir ndax nit boo ñëwee boobu am na ci ñoo xam ne taq nañ taq goo xam ne sunguf rek moo gën a gaaw ci seen i mbir wala am ci ñoo xam ne gëmuñu yàlla maanaam bokkuñu ci diine lislaam te dëgganul ci koo xam ne du jullit nga koy jox arxaan kooku sunguf rek nga mën a jëfandikoo moom kon sëñ Fallou dana jëfandikoo xam-xam bu ñuul waaye na xam-xam bu ñuul nag fa ko nit teg di ay béjjee nag ak reen di déedéet loolu duñ naan xam-xam bu ñuul lii ma la wax na mooy xam-xam bu ñuul ndax léegi da ci si li jëm wàllu secret Aliou Xànjara lan mooy exactement loolu waaw secret Aliou Xànjara bi moom mi ngi toj dëkk bi ndax ñu ngi may woo sëñ bi secret Aliou Xànjara gi yàgg naa ko wax dama koy waxaat mu leer Aliou Xànjara moom liñ ciy liggéey képp ko xam da nga am jigéen gooy xëccool wala nga am kër gooy xëccoo mu xam suuf la lu mën a doon wala nga am bërëb boo xam ne fa nga nekk di liggéey bañ ñu jëlee la fa wala nga ku la ameel bor lank bañ laa fay bu ñu ko liggéeyee ci àlliwu xànjar ga dana la fay sa xaalis mm-hmm. waaye nag bu ñëwee dañ koy xool ba xam kii am na lu mu fayee ba noppi mm-hmm. ndax amul lu mu la fayee mu mun fay bu ñu ko xoolee ba xam ne kii am na lu mu fayee mu xam bor la bu ñu ko tegee ci taal bi di ko liggéey wallahi balaa bis ba bis ba del si da nga jot sa da nga jot sa xaalis mm-hmm. bu dee tamit da ngay xëccug jigéen ku góor ko dana bàyyi bu dee place la boo xam ne dañu la bëgg a dàq jëlee la fa yow yaa fa toog ba sa heure jóge jot fa nga jóge fa waaye kenn fa jëlee mm. waaw te Aliou Xànjar nag moom ci kan macha allah lépp luñ ciy liggéey moom tamit résultat suñu borom may nañu ko mm. waaye nag dañ koy sant yàlla ba léegi ni ma ni ma ni ma ko waxee rek mm. dañ koy sant yàlla ndax lépp moom la waaw lépp moom la. du ñu terminer émission bi saa ñu wax ci actualité politique jamono jii ñu ngi si campagne électorale di jëm élection législative bu 31 juillet yaa ngi ak ban jàngat nga ci am. lu jëm ci walu politique bi moom li ma waxoon rek moom lay dëggal suñ borom dogal na ne kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko nga xam ne moom Sénégal mooy leader bi nga xam ne mooy jiite opposition bi mooy tet ko ko nangu moo am ko ko bañ moo am wallahi ay mbiram la ma ci waxoon rek kenn mënu ci dara képp ku ko bëgg faagaagal yow yaay faagal waaye suñ borom not noppi na ci moom ndax suñ borom lim mu ci moom secret bi mu dëxañ ci moom niñ ko dañ ko xamul waaye buñ ko xamoon dañ noppal ci moom moo tax muy yeewi ak wallu nañ topp ci ginnaawam rek buñ ko toppee li liñ bëgg ci moom danañ ko am. Mhm. waaw. d'accord clients yi fan la ñu lay fekk exactement. di gërëm ñi nga xam ne suñu borom boole na ma ak ñoom. Mhm. ma liggéey ak ñoom. Mhm. maa ngi leen sant bu baax a baax ndax liggéey mi nag yombul. résultat yi ñuy am ci wàllu jaan suñu borom moom moo la neex. mu def ko bu ko neexoon bu buñ ko ñaanee mu bañ ndax moom moom ay yëfam. waaye ñu ngi koy sant bu baax a baax baax moom yàlla suñu borom. di ko sant sant goo xam ne amul tàmbalikaay amul yemukaay. client yi nga xam ne nag dem nañ fu nekk décrasé wu maa leen wax ñu masa buñ masa taayal maa ngi leen di loxo nañ ñëw wallahi bu ñëwee dañ leen jàppale te yàlla rek tax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alo jërëjëf chers internautes ñu amoon mbégte dalal ki xamante ni mooy Serigne Fallou Diop Galssane ñu leen jaajafal bu baax a baax si yeneen plateau yi xamante ni dinañ koy amal ak yeneen invité jërëjëf